mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci bi mu ñu wërsëgalee ñu dajawaat ci suñu téere bi nga xam ne ñi ngi ko doon topp jiitu yàlla dañu nattoo di tëj suñuy jàkk bañ ciy gëjee am dars daanaka mat na ñetti weer kon ñu ngi sant yàlla biñ ci yàlla dellu siwaate di fàttali rek ne mooy téere bi ñuy tuddee ar risala ki ko bind di abi zayd al qayrawani rahimahullah muy téere boo xam ne ni it li taxoon ñu gën koo tànn mooy sunu maam yi fii la ëpp ci ñoom ci moom la ñuy sukkandikoo ci la nga xam ne moo aju ci wàllu fiq la ëpp it mi ngi tege ci la nga xam ne mooy gisunu mazhab imaamu malik rahimahullah jëndoon jëloon nañ ci fukki bunt ak benn ba yegsi woon ci fukki lu bunt bi ak ñaar muy baabun fi nikah wa talaq wa rajaa bunt boobu lañ bëgg ñu dem ci mooy ci fukki lu bunt bi ak ñaar ci bunt bu njëkk bi jotoon nañ cee jël ñetti dars waaye mbokk comme niñ ko waxee mat na ñetti weer ci li nga xam ne mooy wàllu sëy wàllu fase ak yi aju ca loolu daanaka bu ñuy xool li ñuy tuddee fiq ci lislaam ceer ba ci loolu rek lay wax moo taxoon suñu darsu bu njëkk ñu bëggoon koo def darsub nafar la nga xam ne jot nañ ko cee jël nafar goo xam ne du ànd ak di ko chara waaye ni ko téere bi bind rek lañ koy waxe su dee da nga bëgg a dellu ci détail ya nañ ko chara soo delloo ci internet bi am na lu ñuy wax xam islam point com boo ci duggee fa lillahi alhamd mboolem dars yi fi jaar yépp mi ngi foofu jàkk ji it am na ay groupe am na ci groupe telegram boo xam ne nii it dars yooyu yépp mi ngi foofu mi ngi noonu bu doon da ngay remonter groupe yi whatsapp yi it incha allah da nga ko fa fekk waaye tey ñu bëggoon rek jëlaat bunt bi jëlu nafar ba ba dimanche bii di ñëw ñuy doog a jël nag la nga xam ne mooy bind bu bees bu dee ni ñun ñëpp mën nañ ko gisandoo mooy fanweeri bunt bi ak ñaar na doon ak mool boo mën a yor xool rek fanweeri bunt bi ak ñaar bi ma yor moom mi ngi page 47 xëy na trois cent cent am na ku yor cent soixante-douze ci yeneen mool yi soo delloo ci samaru daani bi it xoolal rek fanweeri un quatre cent trente-cinq naam mi ngi noonu kon bu dee gis nañu ko ñu sukkandiku ci yàlla borom téere bi day wax ni wala nikaaxa illa bi waliyin sëy day lislaam du ko nangu lu dul dafay am kilifa ku jigéen ka wa sadaqin am ak can wa shaahiday adl am ñaari seede yu maandu lii te la sëy di tege fa in lam yushhida fi l aqd su dee ba ñuy mayente seede wuñu ko ku góor kaa dajeeg moom rek na ko may naa la sama doom mu ñu nangu na ci ñoom ñaar fala yabni biha hatta yushhida du dem di ànd ak moom ci lal lu dul ñu am ñu ko seedeel wa aqalu sadaqi rubu dinar la gën a néew ci la ñuy cani mooy kaaru dinar dinar mooy 4 gramme 25 ci or loole ci mazhab Malik walil ab inkaahu ibnatihi albikr bi gayri isniha wa in balagat bàyyi am na droit maye doomam bu jigéen bañ ko caa laaj benn ndigal même bu dee ni doom ba dem na ba majeur wa in shaa shawaraha su ko neexee nag diisoo ci ak moom wa amma xayrul ab fil bikr keneen ku dul bàyyi nag ci ab jànq moom wa wasiyin wasiyin aw xayruhu na doon bàyyi ko ko dénkoon wala keneen ku dul moom fala yuzawijaha xatta tabluga du ko dugal ci sëy lu dul xale bu jigéen ba daa majeur wa tazana wa iznuha sumaatuha mu joxe ndigal ndigal ba mooy bañ ko laajee mu noppi loolu ndigal la mën nañ koo maye mu ne wala yuzawwij du du dugal ci ab sëy nag as sayyiba koo xam ne moom daa sëyoon ba pare abun wala xayruhu du baayam du keneen ku dul baay illa bi ridaha lu dul ne dafay joxe ngërëmam wa ta'zana bil qawlu mu joxe ndigal ci wax boppam ne bëgg na waaye bu noppi kenn du ko maye wala tunkahu almaratu illa bi izni waliyiha jigéen kenn du ko takk lu dul ci ndigalu ka nga xam ne mooy kilifaam aw zi ra'yin min ahliha wala boog boroom gisin te mooy boroom kilifteef bu bokk ca njabootam ka rajuli min ashiratiha mu mel ne góor goo xam ne daa bokk ci famim aw sultaan walla boog la fa représenté buur daal di koy maye waxad uxtulifa fi daniya mu ne nag wuute nañ ci jigéen joo xam ne daa suufe te doon loolee ab ñaawaayam la ab taaram la ab doxandéemam la antuwalliya ajnabiyan kookee am nañu ne heure bu jëkkër teewee keneen ku dul kilifaam mën na koo maye wal ibnu awla min al ab ka nga xam ne mooy doomu soxna sa moo gën a yey ci maye yaayam ci baayam wal ab awla min al ax baay moo gën a yey ci frère wa man qaraba min al asaba ña jege ca geño ga muy côté baay a xaq ñoo gën a yey wa in zawajaha al baid su dee ne nag da koo may maye koo xam ne daa sori mada zalika loolu du tee mu wëy masalan bàyyi baa nga fa frère ba maye ko loolu yi du tee mu wëy lu dul ay yeneen charte yoo xam ni waxoon nañ ko ca sharaax ya mu ne walil wasiyi an yuzawija tifla fi wilayatihi ki nga xam ne dañ koo dénk ab xale bu góor am na droit may ko soxna avant muy majeur wala yuzawwij al saghira illa an ya'muruhu al ab bi inkaahiha waaye bu dee nekk xale bu jigéen bu ndaw lañ ko dénkoon moom amul droit di ko maye lu dul bàyyam moo ko ci jox ndigal wa laysa zawil arham min al awliya la nga xam ne mooy côté néegu ndey ñoom bokkuñu duñu ay kilifa ci wàllu sëy nijaay yaag yu deme noonu wal awliyaa min al asaba sëy daal ña nga xam ne ñoo koy war a may mooy côté geño ga soo delloo ca sharxa ba am na leneen luñ ca waxoon wala yaxtubu ahadun ala xitbati axiihi kenn du dem nag di labat labat mooy sàkku soxna fekk sa mbokku jullit mi nga labat ci benn soxna wala yasuumu ala sawmi du waxaale ci biir waxaalim wa zalika ida rakana wa taqaaraba waaye loolu ñu ngi koy tere suñ demee ba jéngante ba jegewoo ci juboo bul jaar ci suuf yewit di labat wala yajuuzu nikaahu shigaar du dagan li ñuy tudde shigaar wa huwa al budu bil budu ca mooy weccoo pay ci pay kaay ma may la sama sœur nga may ma sa sœur te fekk kenn du joxe can ma may la sama doom nga jox ma sa sœur kenn du joxe can islam nangoor loolu wala nikaahu bi gayri sadaq sëy bu amul can islam du nangu loolu jël nit ki jox ko mu jël rek yóbbu ci joxewul benn can islam du nangu loolu wala nikaahul mutaa wa huwa nikaahu ila ajal li nga xam ne mooy mutaa li chia yi di def islam nanguwut loolu kaa ñu sëy un an six mois trois mois déedéet ab sëy kenn du ko wutal date bu mu war a yem wala nikaahu fi idda kenn du takk soxna ci idda bi na doon idda ba jëkkëram moo ko war a moo ko fase mu war a xaar ñetti règle wala jëkkëram dafa faatu mu war a xaar quatre mois dix jours ci biir idda boobu sëy mënu faa am wala ma jarra ila garari fi aqdi aw sadaq sëyit amul ci lépp loo xam ne ak wor da caa am ca ba ñuy fas sëy ba wala ba ñuy joxe can ga wala bi ma la yajuusu bayuhu kenn du joxe canit ci loo xam ni daganul ñu jaay ko mu ngi noonu loo xam ne daganul ñu jaay ko kenn du ko joxe can wa ma fasada min an nikaahi li sadaqihi fusiqa qabla al bina bépp sëy boo xam ni dañoo gis dafa yàqu ngir can ngaa baaxul daañ ko tas avant waa ji di ànd ak moom ci lal fa in daxala biha mada mi ngi noonu waaye nag bu dee neen ànd nag moom ci lal dañ koy wéyal wa kaana fiihi sadaqul misl laaj waa ji nag mu indi can gur mel ni ka ñuy may ay sëram wa ma fasada min nikaahi li li aqdihi loo xam ne nag daa yàqu ci sëy ba ngir pas-pas ba moo baaxul fusiqa ba'dal bina même bu dee ne waa ji ànd na ak moom ci lal du tee dañuy tas sëy boobee fa fiihi l musamma doonte ne nag du tee mu joxe can gam tuddoon ne da koy jox ndaw si wa taqa'u bihi l xurma te it day daganal la nga xam ne mooy araamalante diggante seen diggante mooy waa ji àndoon ak jigéen ci sëy bu bon ba sëy ak moom ci lal day xaraam ay doomam takkaat ko la ca aju yëpp aju ca kama taqa'u bi nikaahi saxiix comme ni muy amee ci sëy boo xam ne sëy bu wér la walakin laa taxillu bihi almutallaqa salaasa ka nga xam ne nag jëkkëram da koo fase woon ñetti yoon mu dem tabbi ci sëy boo xam ne sëy bu baaxul ku mel noonee dañuy gis ne du tax mu daganaat jëkkër ju jëkk ja wala yu xassinu bihi zawjayni sëy bu mel noonu it du tax ñaari dencan ya sangewu sangewu mooy lan islam day teqale ki nga xam ne mas naa sëy ku njaaloo téeméer yar lañ koy dóor ki mas a sëy bu njaaloo dañ koy rey kañ lañ koy rey mooy ànd naag borom këram ci lal wala ànd naag soxnam ci lal amma nag bu dee sëy bu baaxul la sëy boobee kenn da ko considéré ni ñii dañoo sangewu loolu passé mu dikkal la nag ci liy araam ci jigéen ñi nga xam ne kenn waru leen a takk bokk na ci loolu mu ne wa harrama allahu subhanahu min annisaai sab'an yàlla araamal na ca jigéen ña juróom ñaar bil qarabati ngir mbokkoo ga nga bokkook ñoom wa sabaan ak juróom ñaar bi radaa'i wa sëhri ca la nga xam ne ni mooy ak nampalante wa sihr ak ngorowante fa qaala azza wa jal suñu borom mu ni xurrimat alaykum ummahatukum araamal nañ ci yéen seen yaay yi wa banaatukum ak seen doom yu jigéen yi wa axawaatukum ak seen sœur yi wa ammaatukum ak seen bajjen yi wa xaalaatukum ak seen tante yi wa banaatul ax ak doomi seen frère yi wa banaatul uxt ak doomi seen sœur yi fa haulaai min alqaraba ñooñu ak jege ñaa moo tax ñu araam ba faw musul dagan ba faw walawaati min alradaa wa wa sihr qawluhu taala la nga xam ne nag ak nàmpalante moo koy araamal akuk génn ak la nga xam ne moom mooy ngorowoo mooy ak gorowoo mooy la yàlla subhanahu wa taala wax wa ummahatukum laati ardanakum seen yaay yi nga xam ne ñoo leen nampal wa axawatukum min arradaa ak jigéen ñi nga xam ne bokk ngeen namp ci benn jigéen wa ummahatu nisaikum ak seen yaayi soxna yi wa rabaibukum allaati fi xujurikum ak seen doomi soxna ya nekk ci seen kër ya min nisaikum allaati daxaltum bihinna ci soxna yi nga xam ne ànd ngeen ak ñoom ci lal fa in lam takunu daxaltum bihinna bu dee dugg leen ci ñoom àndu leen ak ñoom ci lal fala junaha alaykum dara nekkul nga fase yaay takk doom bu jigéen su dee ne yaag yaay musu leen bokk lal wa halailu abnaikum ak ñi nga xam ne fase na ko seen doom yu góor allazina min aslaabikum doom yi nga xam ne ci seen géño lañ jóge mi nga noonu seen yéen leen jur directement wa an tajma'u bayna al ukhtayn araam na ngeen boole ñaari sœur ci benn sëy illa ma qad salaf xanaa lu dul passé woon na avant aaya yi di wàcc wa qaala taala suñu borom wax na ba tey it wala tankihu ma nakaha abaaukum min annisa bu leen takk mukk loo xam ne seeni baay masuñ koo takk ci ay jigéen looli la alquran araamal ci yi ngi ñu war a sëyal bu ñu delloo ci sunna wa xarama annabiyu sal allahu alayhi wa sallam bi radaa'i ma yaxrumu bi nasab yonent bi alayhi salaam araamal ci ak nampal la nga xam ni dana araam ci ak mbokkoo deret ci ci gàttal rek bépp jigéen bu nampal xale dañuy jàpp ne moog doom bi mu jur ñoo yem lépp lu araam ci doomam ba mu jur day araam ci xale boobee nga xam ne da koo nampal wa naha an tunkaha al mar'atu ala ammatiha aw xaalatiha yonent bi it ñëw dolli ci ni kenn du takk jigéen di ko booleeg bàjjanam wala di ko booleeg tantam ci benn sëy fa man nakaha imraatan xarumat bil aqd képp koo xam ne dafa takk benn soxna gis nañ ne dana dagan te bañ fasee sëy ba duuna an tumassaa ala abaihi wa abnaihi maadaama takk nga soxna si rek bu dee ne même musu leen bokk ci lal waaye sëy bi moom takk nañ ko rek araam na képp kuy sa baay takkati ko képp kuy sa doom takkati ko wa xarumat alayhi ummahatuha dana araam it ca waaja muy takkati képp kuy yaayu soxna soosee mu takk même bu dee bokkuñu ci lal wala taxrumu alayhi banatuha xatta yadxula bil umm waaye nag du araam ci moom doomu jigéen kam takk su dee ne musul bokk ak soxna si lal bu ko neexee fas ko takk doomi jigéen yi comme niñ ko waxee sànq aw yatalazzazu biha bi nikaahin aw milk bokk na ci liy araamalit mooy àndoog moom ci lal ci wàllu sëy waaye nag bànneexu nga ci moom ci aw yaramam su boobaa day tax ba ay doomam yu jigéen yépp araam la mu ne naka noonu it du dagan ci moom aw milkil yaminin aw bi shibhin min nikahin aw aw milkin na doon waa ji dafa bànneexu woon ca ndaw sa cay sëy bu mu sëyeg moom wala jaamam la woon wala lu mel noonu maadaama jël nga jigéen ba bànneexoo ak moom ak noo mën a bànneexoo ak moom araam na ci yow nag gannaaw ba ngay takk ay soxnaam wala yaxrumu bi zina xalaal waaye nag njaaloo du araamal la yàlla daganal kii ñëw xale bu jigéen mu njaaloog moom ku mel noonu mën na takk yaayam ki njaaloog yaay mën na takk xale bu jigéen bi ndax njaalooga lu xaraam la du dàq la yàlla subhanahu wa taala araamal gannaaw loolu mu ne wa xarama allahu subhanahu wat al kawaafir yàlla araamal na ci jullit du sëy ak yéeféer mimman laysa min ahli alkitab ci ñoo xam ni bokkuñu ci ñi yàlla joxoon téere muy yahuud yi ak nasaraan ya bi milkin aw nikaahin na doon ab jaamam la bu mu moom wala sëy buñ koy takkal maadaama du jullit du chrétien du yahuud daganul jullit di sëy ku mel noonu wa yaxillu lwatu lkitaabiyaat bil milk dana dagan nag ñu sëy ak ña nga xam ne dañoo yoroon ay téere ci la nga xamee ne nii moom ga nga leen di moom ñu nekk ay jaam wa yaxillu watu xarairihinna bi nikaax comme na muy dagan ñu daal di sëy ak la nga xam ne nii moom mooy seeni soxna ci la nga mooy seeni gor ca la nga xam ne ni mooy sëy boo xam ne dafa amoon ci sa diggante ak ñoom wala yaxillu watu imaihinna bi nikaahin li xurrin wala lil abd amma bu dee jaam boo xam ne chrétien la wala juif du dagan jullit di sëy ak moom na doon koo jullit ba gor la wala jaam la wala tatazawaju almaratu abdaha wala abda waladiha du dagan ci jigéen mu am jaamam bu góor ba pare di sëy ak moom wala muy sëy ak jaamu doomam wala rajulun amatahu wala amata waladihi du dagan ci góor muy sëy ak jaamam bu jigéen def ko soxna wala jaamu jigéeni doomam am na ci droit nag mooy bu ko goreelee ba pare su ko neexee moom mën na ko takk waaye maadaama jaamam la am na droit di sëy ak moom ci lan waaye du ko def soxna direct mu nekk soxna nekk jaam déedéet da koy goreel ba pare doo ko mën a takk walahu an yatazawaja amata waalidihi dana dagan ci góor mu takk jaamu papaam bu jigéen wa amata ummihi ak jaamu papa yaayam bu jigéen loolu kon mu aju ca la nga xam ne mooy wàllu googee mu ne it walahu an yatazawaja binta imraati abihi min rajulin gayrihi dana dagan nga takk sa doomu jigéen boo xam ne nii yaayam mi ngi sëy ak sa papa te mooy sa tante ji bi muy sëy si indi na am na doom bu jigéen yow góor bi nga xam ne tante juru la am nga droit takk doom boobee lañ cay araamal rek mooy bu doon fekk ne mi ngi nàmp di sëy ak sa papa loolu du dagan waaye bu fekkoon fer na su boobaa dina dagan nga takk ko mu ne wa tatazawaju almara ibna zawjati abiha min rajulin gayrihi naka noonu it soxna saa ngi nii sëy si bi mu sëy si di sëy ak masamba masamba moomu am na doom bu jigéen waaye soxna si avant muy sëy si amoon na doom bu góor feneen doom bu góor boobee am na droit ñëw takk doomu bay jiitleem bii mi ngi noonu wa yajuusu lil xor dana dagan ci ab gor wala abd ak jaam nikaahu arbai xaraira muslimaat mu takk ñeent ca gor yu julit ña aw kitaabiyaat wala ñeent ca chrétien yi ak yahud ya walil abd dana ñeel ka nga xamee ne ba teyit mooy ab jaam nikaahu arbai imain muslimaat mu takk ñeenti jaam yoo xam ne ay gor lañu ay jurit lañu walil xurri zalik dana dagan ci gorit mu takk ñeenti jaam yu jigéen in xashiya al anata su ragalee tabb ci njaaloo walam yajid lil xaraili tawla ca amul kattan goo xam ne nii dana ca takke la nga xam ne nii moom mooy ay gor su ko defee kon mbokk julit yi bala ñoo gën a sori ñoo féexal nit ñi tuuti su dee ni li ñu jot a wax ni am na ci ku amoon lu mu doon laaj ñoo jël ko bala ñoo yegg yeggale bind bi comme dañu bëgg a dem ba fi ñu yemoon yépp ci wàllu sëy yeeg goro yeeg saddaax yi incha allah su dee kenn nemmeeku ci li ñuy laaj it kon ñu continuer ba tey suñu bind booy xoolee téere bi mu ne wal yaadil bayna nisaihi ki am ay soxna na maandu seen diggante wa alayhi nafaqatu wa sukna bi qadri wujdihi dana war ci moom la nga xam ne mooy dépense ba mu war a joxe ak dëkkal ga mu war a dëkkale ci kem kattanam wala qasma fi lmabiti li amatihi wala li ummi waladihi ki nga xam ne daa yor ay soxna yor jaam bu jigéen même jaam ji bu dee jural na ko doom ñu tudda ko umma walat ku mel noonu kenn du ko jox ak ay kenn du ko jox ak ay am na droit di ànd ak moom waaye kenn du ko jox ak ay wala nafaqata li zawjati xatta yadxula biha aw yudaa ila duxul ki takk soxna di ko jox ab dund waragu ko fii ak àndul ak moom ci sëy wala boog ñu woo ko libéré ko ndaw si moom moo bañay dem ànd ak moom waaye bu dul looloo lay dépense waragu ko wa hiya mimman yuta'u misluha waaye it day fekk ne bañ ko koy libéré soxna sa mat na ci ñu mën a ànd ak moom ci ab lal mi ngi noonu te loolu it di lu am importance mooy xale bu jigéen mën a su ko may âge bu nekk waaye bala ñu ko boole jëkkëram fokk war nañoo xaar ba xam ni kii kat attan na di mën a ànd ak góor ci lal wa nikaahu tafwid jaiz la nga xamee ne nii mooy sëy gu ñu boyal dagan na wa huwa an yaqidaahu wala yuskuraani sadaq ca mooy ñu fas ko ca kenn tudd ca can may ma sa doom bu jigéen bi séedda leen ni may naa ko ko sëy bi baax na donte ne tudd ñu can summa la yadxulu biha xatta yafrida laha waaye nag balaa ànd ak moom ci lal fokk mu jox ko can fa in farada laha sadaqa al misl lazimaha su dee ne jox na ko can goo xam ne méngoo na ak la ñuy may ay moroomam loolu day lënkoo ak moom wa in kaana aqalla fa hiya muxayyara su ko indilee nag can goo xam ne moo gën a néew dañ koy tànnaloo bu ko neexee nangu bu ko neexee bañ fa in karihathu furriqa baynahuma illa an yurdiyaha bu dee ne soxna si daa bañ can ga dañuy teqale seen diggante lu dul mu gërëm loo ko aw yafrida laha sadaqan mislaha fa yalzamuha wala boog mu jox ko can gu méngoog dañuy may ay moroomam loolee doon du lënkoog moom mu ñëw ci beneen masala wa iz irtadda ahadu zawjayn su dee ne ñaari way dencante yi kenn da cee génn ci lislaam aliyasu billah in fasaqa nikaahu bi talaq su boobaa sëy ba tas na ci ak fase wa qad qiila bi gayri talaaq am na ñu ne déedéet fasaka yi amul foofu teqale nañ seen diggante rek jeex na wa ida aslama alkafiraan sabata ala nikaahihima su dee ñaari yéeféer dañoo dugg si ci biir lislaam sëy bañ sëyoon ca kéeféer ga islaam day reconnaître sëy boobee su dee ne kay ñoom loolu tudde nañ ko sëy bu safaanoo nag ak di xew Occident tey nga xam ni dañuy ànd rek di dem sëy tuddewuñ ko sëy wa in aslama ahaduhuma fa dalika fasxun bi gayri talaaq su dee ne nag kenn ci ñoom moo dugg ci biir lislaam ka ca des ba ñu dugg su boobaa dañuy tas sëy boobee teqale ko donte ne duñ ko tudde tas fa in aslamat hiya kaana axaqu biha in aslama fi fi l idda su dee ne ka nga xamee ni ni mooy ku jigéen kaa jëkk a tuub dugg ci lislaam sëy bi dañ koy teqale waaye idde ba muy idde woo bu jeexagul waaja tuub ci diggante bi waaju moo gën a yey ci jëlal soxnaam soosee wa in aslama huwa wa kaanat kitaabiya sabata alayha su leente ne nag ñaari chrétien lañu ku góor ki tuub dugg ci lislaam ñaari juif lañu ku góor ki dugg dugg ci lislaam su boobaa amul benn problème sëy bi day daal di continuer ndax dagal na ci julit mu sëy koo xam ne kitaabiya la fa in kaanat majusiya waaye nag bu dee dafa nekk ab ate fa aslamat ba'dahu soxna si daal di dugg ci lislaam gannaaw ba nga xamee ni nii jëkkëram a jëkk a dugg makaanaha kaana zawjayni su boobaa dañuy continuer nekk ay soxna ba tey wa in taxaraza wa in taxara zalika faqad baanat minhu amma nag su dee ne soxna sa teelu lu dugg ba iddaam jeex su boobaa kon seen diggante moom jeex na wa ida aslama mushrik ab bokkaalekat bu jógee fële wa indahu aksaru min arba'i fekk bi muy ñëw mi ngi indaale lu ëpp ñeenti soxna fal yaxtar arba'an wa yufaariq baaqiyahunna day tànn ca soxna yooyu ñeent ña ca des ñëpp mu teqalee leen ñu dem ndax julit du yor lu ëpp ñeent ci ay soxna wa man laa ana zawjata ku rëbbante ak soxnaam lam taxilla lahu abadan ku mel noonu dootu dagan ñu mën a ànd ak ci sëy mukk wa kazalika allazi yatazawwaju almar'atu fi iddatiha naka noonu it ki nga xam ne dafa takk soxna ci biir iddaam idda bi jeexagul nga doon tënji la wala idda fase la wa yatta'uha wa yatta'uha fi iddatiha mu ànd ak moom ci biir idda bi mu ko takkee sharia day tas seen diggante araamal seen diggante ba faw loolu mooy la nga xam ni mooy musammaan wala nikaahu lil abd wala amatin illa an yazuna illa an yazana saydu ka nga xam ne nii mooy ab jaam amul droit di takk soxna jaam bu jigéen ñi kenn amul droit di ko takk lu dul ab sangoom moo joxe ndigal ci loolu loolu mi ngi noonu mu ne wala taqidul imraatun wala abdun wala an ala gayri diini islam nikaahu imraa la taqidul mara jigéen du maye sëy wala abd jaam du maye sëy wala man ala gayri diini islam ku bokkul ci diini islam islam du ko jox ndigal muy maye ab sëy nikaaha imraa muy sëyu jigéen mi ngi noonu wala yajuzu an yatazawaja rajulu imraa du dagan mukk ci góor muy dem takk benn jigéen li yuxillaha liman tallaqaha salaasa jubluwaayam du dara lu dul daganal ko ci koo xam ne da koo fase woon ñetti fase wala yuxilluha zalim bu dee yit loolu moo nekkoon seen yéene du dagan mukk muy dellu ci jëkkëram di jëkk ja wala yajuzu nikaahul muhrim du dagan la nga xam ne mooy sëyub ka armal di aj makka li nafsihi na doon ci bakkanam wala yaqidu nikahan li ghayrihi ko mel noonu it du takkal soxna keneen ku dul moom wala yujuzu nikahul marid du dagan ka nga xam ne dafa nekk ci feebaru dee mooy xam ne ni il est condamné muy dem di takk soxna wa yufsaxu dees na teqale sëy boobee wa in bana biha falaha sadaq su dee nag jot naa ànd ak moom ci lal dana ko jox canam fi sulus ca la nga xam ne mooy ceeru alalam mubdaa ba nga xam ne ca la ñuy commencé wala miraasu laha soxna su mel noonu kenn du ko boole ci miraas mi parce que dañuy jàpp ni da koo takk ngir dugal ko ci miraasam waaye moom xam ne ne day dee walaw tallaqa almaridu imraatahu lazimahu zalik wa kaana laha miraas contraire bi ki nga xam ne dem na ba feebar ba condamné wu ba xam ne dee ko dese mu daal di fase soxnaam dañ naan sëy bi de tas na waaye soxna soxna si du tee mu donn in maata fi maradihi zaari su dee ne feebar boobu moo ko rey wa man tallaqa imraata salaasan koo xam ne dafa fase soxnaam ñetti yoon lam taxillu lahu du daganaat ci moom bi milkin ci da koo jënd mu nekk jaamam wala nikaahin wala ci sëy xatta tankiha zawjan xayra xanaa lu dul soxna si dafa dem sëy ak keneen mu ne it wa talaaqu salaas fasa ñetti fase fii kalimatin ci benn kàddu waahidatin kese bid'a lool day bidaa la wa yalzumuhu in waqaa waaye it loolee dañ ko koy lënk wéyal ko ci moom su dee am na jàkkaarloog sa jabar na ko fase naa la ñetti yoon juróomi yoon juróom-ñaari yoon dañ naan seen diggante araam na ba faw lu dul mu takk beneen soxna donte ni waxoon nañ ci lañ ca waxoon wa talaaqu sunna fasam sunna nag mooy mubaahun lu dagan la wa huwa an yutalliqaha te mooy mu fase soxna sa fii toxrin ci laab gum laab mooy gis na règle ba règle bi jeex lam yaqrabuha nga xam ni jegewu ko ci lal fiihi talqa mu daal di koy fase benn fase loolu mooy fase sunna xaar nga ba soxna si gis réegal jotagu leen ànd ci sëy nga fas ko benn fase summa laa yutbi'aha talaqan xatta tanqadiya al idda mu bañ caa teg beneen fase lu dul iddaam jeex walahu raj'atu fi llati taxiidu dana ko ñeel mu jëlaat soxnaam ca ka nga xam ne day gis réegal maanaam tadxulu fi lxaydati thaalisa fii duggul ci ñetteelu réegal ba rek idda bi moom ma nga fa fil xurra loolee muy bu dee gor la aw saaniya fil amma wala boog réeglu ñaareel ba su dee ne jaam la fase woon fa in kaanat mimman lam tahit su dee soxna sa daa bokk ci ñi nga xam ne duñu gis réegal aw mimman qad yaisat min al maxiid wala mu bokk ci jigéen ñi nga xam ne mooy yëgg nañ ménopause mooy dootuñu gisati réegal tallaqaha mata shaa soxna su mel noonu moom heure bu la neexee nga koy fase wa kazalika alxaamil loolu la ñuy waxe ci jigéen bi ëmb heure bu la neexee nga fase ko wa turtaju alxaamil dees na delloo si soxna sa ëmboon maanaam tada soxna si ëmb heure bu la neexee fase ko heure bu la neexee delloo si waat ko fi yëggu sinagul maadaama yeggagu leen ci ñetti fase wal mu'tadda bi shuhur ka nga xam ne nag day iddewoo ci ay weer maa lam tanqadi al idda fi yéeg idda ba jeexagul bu la neexee nga delloo si ko wal aqraau hiya al athaar la ñuy tudde aqra te mooy fi suñu borom di wax naan salaasatu quru loolu mooy laab ga ñuy laab am na ñoo xam ne dañ ne athaar mooy deretu règle bi am na ñoo xam ne dañ ne mooy laab gi lay mazhab Maalik ak ulama yi mel na ñoom dañ ne mooy laab ji te mooy kon jigéen boo ko fasee ci jamonoy laab dañ naan benn laabango mu gis beneen règle ba laab ñu ne ñaari laabango mu gis beneen règle su dee ne dem na ba laab su boobaa dañ naan règle idda bi jeex na amma bu dee ñëkk a considéré ay règle nag dañuy il faut mu dugg ca règle ba ca teg yi loolu yi détaillé woon nañ ko ci dars yi passé bokk na li ci mujj mu ne wa yunha dees na tere an yutallaqa fi lxayd ñiy fase jigéen ci jamono règle fa in tallaqa lazima heure boo fasee jigéen ci dafa ànd ak règle loolee day lënkoo ak yow wa yujbaru ala raj'a doonte ne daañu la forcé nag nga jëlaat ko maalam tanqadil idda fii ak idda ba jeexagul dañ naan la jëlaat ko ñu considéré benn ngoog walati lam yadxul biha yutalliquha mata shaa may nañ la soxna mosoo ànd ak moom ci lan ku mel noonu heure bu la neexee fase ko wal waahidatu tubiinuha benn fase ba nga ko fase nag teqale na seen diggante ba faw wa salaasu tuharrimuha ñetteelu fase ba dana ko araamal ci yow ba faw ila baada zawj xanaa lu dul dafa dem ba am beneen sëy beneen jëkkër wa man qaala li zawjatihi anti taaliq képp koo jàkkaarloog soxnaam ne ko fase naa la fa hiya waaxida dañ koy considéré benn fase xatta yanwiya aksara min zalik lu dul mu daal di yéene ci bi mu koy fase naa la loo xam ne ëpp na ñaari fase ëpp na benn fase mi ngi noonu mu ne wal xulu la nga xam ne muy simmi konti ci wàllu sëy te mooy delloo alal talqatun fase lañ koy considéré laa rajaata fiiha boo xam ne nag waa ji amul droit di ko jëlaat comme bu fase woon soxna si fase normal tant que idda bi jeexul am na droit jëlaat ko waaye bu dee ci ak cummee ko amu ci droit wa in lam yusammi talaqan doonte ne tudduñu fase waaye soxna si ñëw ne ne ko man kat dama bëgg summee ko mu ne ko delloo ma la ma la joxoon mu delloo ko sëy ba dañ naan sëy ba jeex na ida atathu bu ko joxee kay lam koy jox shay'an fa xallaaha bihi waa ji daal di koy summeekoon teg moom ci loolu min nafsihi ci bakkanam su boobaa dañu naan a la nga xamee ni day kon mooy sëy bi jeex na seen diggante mbokk julit fii la ñu yemoon ci dars yi nga xam ne dañ koo jëloon mu jege woon ñetti dars yu teqalikoo comme niñ leen ko waxee ay bind yu bare bare bare bari la yoo tegaloo waaye ñu bëggoon a yee salaat nit ñi ci bunt bu màgg bi nga xam ne mooy buntu sëy ba ngal la bu ñu fiy dellu siwaatee beneen yoon continué waat ci bind bi ñu xamale ne nag suñu borom jalla wa ala di tax mu leeral la nga xamee ne mooy sëy gii leeral yépp mbokk sëy bu baaxee rek adduna baax adduna du dara lu dul famille yu daje kese famille yu daje kese rek loolu mooy adduna bu sëy yi baaxoon rek adduna yépp bokk baax bu sëy yi yàqoo njaboot gi yàqu adduna yépp bokk yàqu loolee kon mooy tax ba islam insiste lool ci bunt bi nga xam ne mooy fiq xam naa kon dañuy bàyyi bilaal mu noddal ñu bu dee ne di des ci waxtu wi su dee am na ay laaj yuñ ci jàllale insha allah ñu laaj ko wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mu ne boo sumi ko jigéen mënatoo ko takk lu dul baada zawj non déedéet c'est-à-dire que boo boo sumi konte ak jigéen dañu naan seen diggante jeex na amoo droit di ko jëlaat c'est-à-dire que ci biir idda bi comme na nga boo fase woon jigéen normal mu neex ko mu neexul dafa am lu ñu tuddee rajaa mën nga koo delloosi amaa nag bu dee ne da ngeen summi konte doo ko delloosi lu dul ci la nga xam ne mooy bànneexam ak can goo xam ne dañ koy joxe muy sëy bu bees loolu mooy teqale ki summi konte ak ki ñu fase mooy rajaa lu dul am ci moom mi ngi noonu waaye baada zawji moom la koy waral rek mooy fase bi doon ñetti fase mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam wa rahmatulah bépp jigéen boo xam ne julit la ay woy juróom nekk chrétien ku mel noonu day seet ca mbokk julit ya kaka ca doy mu jox ko kilifteefam su loolu amul la nga xam ne mooy kilifteefu lislaam ba fa nekk mooy féetewoo maye ko waaye la nga xam ne mooy yéeféer du maye jullit ki nga xam ne ab chrétien la ab lu mu mën a doon doomam bu jigéen tub dugg ci lislaam islaam du ko jox kilifteef ci moom mi ngi noonu bu doonte ne nag moom soxna sa daa nekk chrétien comme moom su boobaa moom mën na koo maye ndax ñoo bokk seen diine waaye bu doom bu jigéen ba tuubee moom amatul benn kilifteef bu ñu am ci moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah kiñ ko nar a may ah waaw waaw koo xam ne nii kiñ koy may yow wóolu wa pas-pasam ndax am nga droit bañ koo fekkee ah fekkee ab sëy moom du farata fekk ab sëy moom du farata kon képp koo xam ne wóoluwa pas-pasam bu la neexee bañ a fekk ab sëyam mi ngi mel ne rek tey jii do sunu doom yi nga xam ne dañ koy may ay tubaab man day képp ku ñëw ne ma tubaab bii daa bëgg fàccaam léegi day tuub ñu may ko ko loolu man duma ko fekk mi ngi noonu rejeté naa ci ay sëy yu bëree bëri duma ko fekk su dee daal fàttaam dong moo ko tax a dugg ci lislaam loolee mbokk wóorut kon bépp loo xam ne ni parce que suñu borom dane bu leen may seen doom yi ay nit xataa yu mi ne di loolu yàlla wax bu baa ñu gëm gëm mbokk ak taxaw ne laa ilaha illallah bokkut kon chrétien tubaab boo xam ne nii chinois ak lu mu mën a doon suñ gisee ni jullit la mu ñëw ñaan suñu doom bu la neexee nga may ko ko waaye ci ak yéeféeram la nekk doom bu jigéen bi të dem jaxasoog moom ba ñu bëggante ba xam léegi mu bëgg koo yóbbu ñu ne ko waaw ñun duñu may suñ dëm ku dul julit mu ne waaw kon damay tuub tuub gi may lan mooy waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mbokk loolee wóorul loolee wóorul loolu moo tax moom gis naa ci ay trahison yu garaaw a garaaw a garaaw bal gis naa ci koo xam ni alpulaar boo ko xam ngeen ni tukulóor yéeféer bariwul de mais tukulóor doomu tukulóor ñu jël doomam may ko benn italien mu yóbbu ko Italie waxuma waa ji daa génn ci lislaam mais daa génne waala soxna ci génni lislaam ba jamonoy tey loo xam ne ëpp na 30 ans waa ji soxna si ba tey athée la athée donc ab du sax chrétien bu baax loolee moo tax mbokk loolu moom ëpp naa def wallahu subhanahu wa taala aalam noom su dee ne ala kulli xaal bu dee mbokk yi am na ci yeneen yu ñu yu ñuy laaj bokk na rek ci ñu nga xam ne mbokk ab sëy moom suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ko tuddee la nga xam ne mooy aw yoon yoon bu lay yóbbu aljanna wala yoon bu lay yóbbu sawara looloo tax mu ni bu leen may seen doom yi bu leen takk jigéen boo xam ne yéeféer la jigéenu yéeféer suñu borom mu ne bu ko takk bu leen jël seen doom di ko may yéeféer suñu borom mu ni nga jël sa doom bu jigéen may ko jaam boo xam ne nii jullit la te loolu it islaam da koo da koo sib waaye araamulu ko nga jël sa doom bu jigéen may ko jaam boo xam ne jullit la moo gën nga may ko ab yéeféer ak yéeféer ba lum la yéem yéem yéem naka noonu yow góor nga dem takk jaam bu jigéen moo gën nga dem takk jaam bu jigéen boo xam ne jullit la moo gën nga dem takk julit jigéen boo xam ne ca aristocrate yi la bokk ak lum la yéem yéem suñu borom lan la ko tëddee mu ne ulaayka yaduuna ila annar wallahu yaduu ila aljanna sa yëg ku bon na doon góor ak jigéen dalay yóbbu ci sawara yoonu sawara la yàlla nekk mi ngi yóbbu yoonu aljanna loolu moo tax ba ku nekk si ñun war a xool kan ngay takk soxna war a xool kan ngay may sa doom bañ a xool rek situation addunaam waaye di xool situation diineem ndax rawatina doom bu jigéen bi su ko yàlla nattoo mu am jëkkër bu baax bu déggal diine xam diine chance la ci moom ci mu teete ko ci loolu waaye su ko yàlla nattoo jëkkër bu bon loolee mbokk nattu la bu rëy boo xam ne mën na ko sagganloo diineem lool loolee kon di mbir moo xam ne nii mbir lu bu jar a bàyyi xel incha allah di ñaan yàlla subhanahu ah naam képp koo xam ne nii dafa jël doomu jigéen boo xam ne gor may ko jaam lii di ak njaam yaay lay topp ak njaam yaay lay topp su ko defee ak gor naka noonu itamit yaay lay topp yow mi nga xam ne gor piir nga nga dem takk ab jaam doom ya nga ci am yépp ay jaam lañu doon jigéenu gor sëy ak jaam doom yam ci am yépp gor lañu loolu moo tax ba la nga xam ni moom mooy ak njaam loolu yi dañ naan yaay lay topp gor yaay lay topp mi ngi noonu tey jii da ngay gis ne islaam ñaari jaame ngi nii di sëy su dee ni dañuy sëy kenn ki ñu goreel ko masalan soxna si ñu goreel ko islaam danaan ko tànnal bu la neexee léegi nga continuer moom ci sëy bi bu la neexee nga am sa liberté ba su boobaa dañuy gis ni doom yam jëkkoon a am fekk jaam la doom yee dañ leen di considéré ay jaam mais bi nga xam ne góoreel nañ ko ba pare na doon daa siyeg jaam daa siyeg góor a ci yem maadaama góor la doom yu jur yëpp ay góor la ñu doon loolu mi ngi noonu mooy atteb lislaam ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk kon ah ah mais loolu la moo tax suñu borom mu ne jaam bu takk wala góor bu takk jaam góor ci jigéen dem téye jàmm bu góor. ma ne kooku moom pratiquement ak jàmm bu góor bi.
waaw waaw waaw parce que doomam yi ay doomam ay góor la ñu doon moom moom moom li li leen di it la yàlla ne buñ ko def lu dul ko ragal njaaloo te mooy yow góor nga takk jaam bu jigéen lu waral loolu mooy say doom yëpp ay jaam la ñu doon moo tax suñu borom mu ne daganal naa ko li man xashiyal anati minkum ci koo xam ne ragal naa ci loolu ci moom donte ne masala yooyu ñu ngi koy jàng waaye suñ jamono tey ji daal di ko jaam bu ñuy jël di takk ka may yooyu moom jafe na suñu société yi bokk ala kulli xaal loolu mooy kon sun nafar bi nga xam ne dañ ko doon nafar tey bu ñu fi yàlla dajala waatee ñu jëlaat bind bu bees di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla tànnal sëy yu barkeel ak njaboot gu barkeel sàmmal ñu ko def ko yiwu àdduna ak yiwu alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain